Assalamualaikum wa Senegal. Assalamualaikum aduna. Assalamualaikum sama rew. man wali Balago Seck maa ngi leen di nuyu ku ci nek sa tour ak sa sant di la masawu waaye tamit di jale ñi nga xamanteni seen i seen i mag seen askan genn nañ aduna ci li di ñaan yalla xaaral na te yexé ñu gaay yi ma ngi wax parce que limay def ni gënaluma muy vidéo jox naa cër sénégalais jox cër bo xamanteni suma sañon sama wax du nek vidéo ah waye nak da ngeen xam ni new ci dëkk ba te it mang koy naqarlu maa ngi bokk naqar bi ak yeen maa ngi bokk métit bi ak yeen maa ngi bokk tiis bi ak yeen li àdduna yëpp la metti ku ne xam ne Sénégal baaxoo li kenn xamewu leen donc ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gën ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gën man yàlla dafa dogal jeunesse bi sama xarit lañu te vraiment li ñuy daj ñi metti na lool metti na lool man Sénégal rek laa am sama askan samay xarit sama waajur sama yaay samay doom ñëpp a ngi Sénégal yàlla xam na ni gëj nelaw yàlla xam na ni gëj naa nelaw ku ma xool xam ni gëj naa nelaw màcc na ba ci kanam yàlla ñu ngi naan yàlla teg ko nu mu gën a gaay waaye nag ngir yàlla war suul yi force de l'ordre yi maa leen di ñaan ngir yàlla war suul yi nañ yërëm ndaw ñi nañ yërëm ndaw ñi ñi jiite nañ yërëm ndaw ñi ñi jiitu nañ yërëm ndaw ñi ndax ndaw kat njabootu kanaara la boo ko jiitalee da nga ko yërëm yàlla na yàlla sàmm ñëpp yàlla na jàmm dellu siwaat ci réew mi ci nu mu gën a gaawee la ci des nag bu ma ñëwee jàmm ak salaam dinañ def na mu waree mottali ko na mu waree bokk na naqaar bi ak yéen jërë ngeen jëf wasalaam